mbooloo mi sëriñ Mamour mu ngi leen di nuyu ci baatu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu nee di sant sunu boroom nga xam ni mooy aji man gi te moom yàlla moo yor dogal yépp mu may ñu ñu fekke bés bii nga xam ni doon nañ ko waajal ay weer muy bésu jullit ñi ndax fu ñuy wéetalee yàlla dafa tagge yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jullit ñépp a ko bokk mu ni daayira xadara bi nag lañ koy askaleel mu ni lépp loo gis ci àdduna am na ci sabab bu ko yàlla di jaarale ba ñu mën see jariñu kon wa xadara bi yalna yalla yàlla yëkkati leen ak seen njiit mi nga xamne mo nek ci bopp di serigne mbay lay amin amin mu ne yàlla ko yalla dundal mu ne dañuy wax ni doomu ñay matula ñaanal reuy dang koy ñaanal mu dund rek kon serigne bi neena mu ngi ñaanal mbay kenn ni ko Serigne Cheikh Mbacke waxee ndax bu fi yàggee rek waaye rek mu jiital magam di Serigne Paama moom mii Serigne Mamour nee na mu fekke lu bari moo ko daan lalal basan di ko xiimal attaaya léegi nag paana ber na ko ba moom mii sax ko dootu jot ci paana ci mbay rek lay jot waaye mu ni moom mi sëriñ Maamar ku ko gën a sant yàlla mu ni baayam sëñ Ablaay bi muy dem moom la leen dënk mu ni ko Maamar bu bëgg dara fexeel ba xale yi bu ñu mer bu ñu jàq lu leen nit defal yow la ko defal nee na ko bés gaa yi nañu delloo xel ca gannaaw mu ni ko ay rakkam Sëriñ Useynu ñoom ñu ni ko yow de sarak yi nangam mu ni ñu amuñu dara maam moom seen lépp ginaar ak i nenam borom ginaar ak moom mu ni moom li muy ñaan xale yii mu ni gisul lu ñu am mu ni def leen di làbbali rek ñu gën a dox ca kanam ndax kuñ ni sëriñ Abdoulaye mooy sa wéyjur war nga tëdd ba guddi nga jóg xoolaat sa bopp من يوم تبي صلى الله عليه وسلم دفع وحنا من سنو برم دفع وحنا من يلا أراملنا جلتك مرامم دريتم مطور دريتم جلدو الأق من من يلا دمكو تري نونو لا تري إتم نيندي يقنتي علل نون kéem la fi xewoon ci weer yi passé taalantey kër ak i oto loolu yàlla daf ko araamal mu ne xanaa nga tooñ ñu jël àq ja nga tooñ jox ko ka nga loroon mu ni loolu nag yow yaa ko def yàq oto jàmbur ñu yàq sa oto yàq kër jàmbur ñu yàq sa kër lol nak ak la waye lu dul loolu seen temps bu len ko def ci tiaxan muni wax na ko barki dem mu Baye Abdoulaye Thiaw reference la fi la daan tok jami yalla yi di ñew muy waxtaan ak ñom mu bobu nak telephone amul dañuy tok diko deglu rek mu nan yalla neena sayyidina Seydina neena Seydina Isa nee na ba ngoon loolu rek lañ xamoon loolu nag xale yi taxaw nañu foofu mbay laa ngi jàngal mag ñi di jàngal xale yi mu ne Serigne Cheikh nag dafa dugg fu doy waar ndax kuy fàttaliku ëllëg te alxuraan nag ñett rek la ñu andil daf ñuy wax démb gunge ñu tey bàyyiloo ñu xel ëllëg alxuraan rekk ko man démb tey nga bàyyi xel ëllëg mu ni mooy nee na waajal sag ndaw sag mag ndax boo magalee doo am gàcce mu ne mooy nga góorgóorlu ci sa réew ci sa dëkk ci say mbokk ci say xarit ba kenn bañ laa jéppi sa sëriñ bañ laa jéppi say wayjur bañ laa jéppi mu ni loolu nag mooy góor góorgóorlu soo nekkee ndaw góorgóorlu balaa mag a ñëw soo amee jot góorgóorlu balaa ñàkk ñëw soo amee alal nanga góor góorgóorlu def ko ci yoonu yàlla balaa ñàkk ñëw mu ni képp koo xam ne bëgg ngaa commerce te doo perte ca commerce ba àdduna ak alaaxira mu ni na ko def ci bés yu mel nii jënd nag wala gëléem dindi coffre fort bi lebal yàlla yàlla ngeen lebal lebalu leen mbay lebalu leen xadara bi luñ fi wax ci suuba léegi jàng alquran fàttali yàlla tagg yonent bi seydina limam alayhi salaatu wassalaam kon xale yi jërë ngeen jëf képp ku def sa alal ci bés bii yàlla na ko yàlla yokk yàlla na ko yàlla barkeel mu ni dafa bëggoon ñu gën a yokk loxo yi itam mu ni xam ngeen nag dafa seer léegi ak i géléem te loolu yépp lañ fi bëgg ku waajul woon nag booy ñëw ngoon nanga nga na khalaikat danyam aigan am nañuy gan ñi jóge ties ñi nga xam ñi jóge partout ci gox yu fasantikoo koy te am nañu ñëw ci kanam mu ni nena ngeen wax bi serigne paana neena nena matna serigne na paana borom la neena neena lepp matna kon nak ñi fi def ci lu feeñ ak lu nëbb yal na yàlla wutal mu ni mbay laay ñoom ñaar wax nañu lu bari ci ndigalu sëriñ paana waaye cheikh mu ngi gërëm xalifa bi yal na yàlla yokk wéram yàlla sàmm ko ak rakkam yu baax yi seydi muhammadul amin moo ñu daan wettali fii waaye nag léeg-léeg ngànt faw muy am moo tax naayib baax waaye yow sëriñ Cheikh mat nga naayib yàlla moo la jagleel loolu nga fàttali ñu sunu bopp mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na bokk na ci li nga xam ne mooy matal ab jullit mu mat jullit bu mat lépp lu amul njariñ ay détails te ku nekk xam na ni détails dafa bari li ñu wax diffamation wax ci nit lu leerul loolu nañ ko maytu ndax ay bàkkaar la tëj kaso moo ci gën a oyof loolu yonent bee ku njëkk tere toog di wax ci nit loo xam ni bàkkaar bu mag la nan ko ba ci bàkkaar yi gën a mag la bokk mu ne Seydina Limaamu nag dañu yéen li ma leen koy wuutale mooy tudd yàlla suba ak ngoon guddi ak bëccëg ndax bu boobaa du ngeen wax ci seen bopp loo xam ne lu aay la mu ni maamam Seydina Limaam waxoon na ko bu yàgg jëkkante ak nasaraani ci xale yi ak jigéen ñi daayira bii di xadara bi ay jigéen lañu ak i xale mbaylaay di leen jàngal seeni farata ak seeni sunna ak seeni mandubaat kon Babacar jàng du wees mu ni moom bi muy jàng takk na soxna Oustaz Gueye mu ni mii toog ci ay sëriñam la bokk mu ni dina ko wax mu ni moom day du feeñ waaye mu ni jàngal na ko fiq mu ni xëy na am na yum ci fàtte mu ni ibnu asir ñoom risaala bàyyi abdu ngoom firil ko alquran mu ni moom bàyyi gay ku baax la ci dëkk bi ku yaru la ku dëgg fiq la mu ni Moustapha mi itam mooy Moustapha Cissé di jarbaat ci bàyyi ngañ yor daara kom di yëngu ci imaam yi nag kon ñu ngi gërëm imaam yëpp ak ustaaz yëpp ak mboolem responsable politique yi Momar Talla Gajaga ak waa mairie bi yëpp ak ñi ñu xam ak ñu xamul muy foofu lay yemale kàddoom sëriñ sëriñ ma xujja nee na ñu sant sëriñ Seex bu baax ndax moom saa bu ñu ko takkee rek mu jóg mu ne xam ngeen ni cheikh nammul dara li yi di wax waaye daf ñuy bégal si rek ndax kenn du wax ci sa bopp te ku nangula déglu sëriñ bi nee na baayam nee na ko xam-xam mu ngi yem ci xawma wér mu ngi yem ci xam ci li ngay lekk muus mu ngi yem ci noppi deel nangu di déglu ku la ëppale xam-xam ngay dolli ci li nga yor ndax ñépp mënuñoo waxtaan ñii yàllaa leen jagleel lii ñee yàlla jagle leen leen mu ni moom nag mën naa bégal jullit ñi ba seen xol tooy ñu dellu ca kër ya kon seex bégal nga njaboot gi yépp yal na yàlla bégal la nga nuyu ñu xalifa bi ak njabootam gépp nga xamale ni njabootam bég nañu tey ci sa teewaay sëriñ ma xujja moo la ko wax nga ñaanal sunu yaay ci kër gi tant na koy ñoom aji yaa am satu taal alsaan ñoo uuf njaboot gi ci kër gi ngeen sànni leen ñaan lépp ñoo ma nag ñoo fi toog muñ ba lii ñëw tey dañ leen di fàtte nag ñoo waral lépp wasalaamualeykum mu ne imaam Omar Ndiaye mu ngi koy gërëm ci taxawaay bi mu ne gars duñ ko jox mbubb duñ ko jox xaalis ah, imaam imam Omar ne sëñ mu xuj mu jox xaalis nee mu xujaa jox xaalis yal yàlla bàyyi la kanam bàyyi dun itam dana teew fii waaye magee rek doomam yaa ngi fi alsaan ñoo mag yal na yàlla fay wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu